diinun siwa islaamihi la yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu kon diine islaam na ñëw ngir yeesal bu nu waxee yeesal nag mooy li fi nekk mu ngi fi waaye nag pënd bi ci kaw yi ci bokkul yi ci taq ñu fomp ko ba mu set man koo jariñoo looloo yeesal kon moom tajdid lay def nga xam ni ni ko ni ko jiitu daan defe bi mu ñëwee moom tajdid bi mu indi dafa gën a matale ndax desalul dara ci lu ñu war a topp ci lislaam fàttewul lenn ci loo xam ne yanant bi jàngale na ko ci lislaam léppam dafa ma loola nag mu tënk ko ndax diine ji nu bokk dafa am ñetti xaaj yu fondamental al imaanu muy ngëm yàlla gu wér nga xam ne mooy taw xaw-xamu tawxiid wéetal yàlla ci lañ koy xame am lu ñuy wax al islaamu muy diine ju wér nga xam ne xam-xamu fiq moo koy peeg am lu ñuy wax al ihsaanu muy rafetal nga xam ni tasawuf lay jàngale nga xam ne ñett yépp sëñ bi da koo matale bi mu jógee itam mu jaar ci jaaruwaay yépp ba làq ngërëmu ñi ñu jàppoon ni ñëpp ñoo jiitu ci ku jug di wuti yanant bi alayhi salaatu wasalaam mu roy ñëpp soobu ci seeni yoon liggéeyal leen ci lislaam ba ñooñu ñëpp gërëm ko mu dem ci fu boppam ba yanant bi yor mbir yi ni ko bis ni ki tey kenn doxatul sama diggante ak yow mm-hmm. man ak yow la directement xëcc naa la teg la ci sama wet mu nekk xaadimu rasul kon lii yittee mooy diine islaam jooju mu yëkkati ko ba mu am ndam te loolu la sëñ def bi mu tàllalee loxoom tam nag woote dafa woote ci kaw ndigalu yanant bi alayhi salaatu wasalaam ndax bu ñu fàtte ni moo wax ni amara nii rabbi bi an usariha bi an nii malazun wa himman wa mafzaun fa man araada al xayra fii kilta yi daaree ni fal bii yàlla sama borom moo ma digal man sëriñ Tuubaa ci ma fësal ba jaam ñépp jot ci sama woote ni man wéerukaay laa ku wéeru ci man doo daan ni man làqukaay laa ku làqu ci man danga raw ni man xettalikaay laa ku ñëw ci man ma xettali la ku bëgg yiwu àdduna ak àllaaxiraa ñëwal moom mi ko woote mu gën a topp ñëpp yàlla moom mi ko woote mu gën a bëgg ñëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu feeñ ci léppam moom mi ko woote mu gën a fonk alxuraan jëfandikoo ko ci léppam moom mi ko woote mu wane dëddu àdduna lépp lu jëm ci àdduna nekku ca wan ginnaaw lépp luy poñe yàlla képp doy ko mu koy jaamu jaamu bu ko kenn mësta jaam bi mu wootee nag mag ñi am pastéef te nangu li yàllay dogal ñu wuy si ko nga xam ni ñoom li leen topploo woon sëñ Tuubaa du dara yii ñuy xënte woo tey muy àdduna kese colin yu rafet oto yu rafet dëkkuwaay yu kawe poñetu àdduna bi taxul woon mag ñi dem toppi sëñ Tuubaa moom bi mu wootee ci yàlla la woote bi mu wootee ci lislaam la woote ñoo ko wuy ji yàllaa tax ñu topp ji ko ba ñu demee yàlla la leen wan ci yàlla la leen wammat jëme bu ñu la waxee mag ñooñu mu njëkk a woo ku mel ni sëñ aadama Gueye mage na sëriñ Touba ci Zahir juróom-ñetti at ndax 1844 la feeñ ci mbaabu jàng na ba jeexal téere yi ndax ci daara yi Mamor Anta la nekkoon waaye la mu yëg ci sëñ Touba mosu ko gis ci mbindeef mu nangu ñëw def mu bàyyi a jaayanteek moom ci première murit yi la bokk bu ñu la waxee sëñ Ibrahima saar Njaañ mage na Cheikhul Khadim ñaari at mu ngi fee feeñ 1850 fu ne làmb na fa yàlla ba ku ñuy wax seer Cheikh Mor Lamine Sarr dem na fa Cheikh Mor Lamine Ndiaye ca Jolof waaye ba mu yëgee woote sëñ Touba la bàyyi lépp ñëw jaayanteeg moom ma Massamba Diouf Sam nga xam ni moom tam mage na Serigne Touba benn at waaye bi mu déggee woote Serigne bi lawan lépp ginnaaw ak xam-xam baag taxawaay ba ñëw jaayanteeg sëñ Touba. sëriñ daam Abdourahman loo ko ne xam taxawaayam ci xam-xam ak ci alquran mu ñëw def mu bàyyi a jaayanteeg moom sëriñ Mouhamed Lamine Gueye Jamooy nga xam ne mooy ngayeen bi njëkk a jaayanteeg sëñ Touba léppam kawe woon mu gis ni kii mooy lay yàlla wàcc mu dikk jaayanteeg sëñ Touba sëriñ Daaru Assane Ndiaye xoola taxawaay bi mu amoon àgg na ci wax ni ñaari malaayka yi nekk sama mbagg bii mooy bi may bindal tuyaaba ak yiw ak lu rafet hmm. bii moo may bindal safaan hmm. muy attit ak raqib hmm. ñaari malaayka yooyu de maa ngi giñ mañ sëñ daaru Assane Ndiaye bii bind tuyaaba wóoruma ba xam dina bindam déet waaye bii bind bàkkaar moom giñ naa ba sama dunduy jeex du ma bindal lu ma tooñ yàlla kon ñooñu ci lañu war a teg bët ñii fii lañu nekkoon xoola ka ca topp di sëriñ Ahmadou Fa Jamañang nga xam ni ci yitteem àgg na ci malaaka yi déyante ca kaw hmm. mu toog ci suuf di ko dégg te loolu martaba bu kawe la hmm. te bi mu ci eggee terewul bi mu ko gaaralee sëriñ bi hmm. sëriñ bi dani ko loolu am na solo waaye am na lu ko ëpp solo toog ci suuf di dégg ndeeyu malaayka amul solo fexe ba àgg fa ñuy déyante bala ñoo déyante laajte ndigal moo ko ëpp solo te boo jébbaloo ma yóbbu la foofa dégg ngeen sëñ Muntaxa bu yàggul wax na ni murit buñ ko dundee dëggantaan malaayka yee sunu nawle jooju wax lu jar décortiquer la xam ko kon ñi toppoon sëñ Tuubaa malaayka yi lañ defoon ay nawle ci topp yàlla nit saaba yi lañ defoon ay référence ci nangu ndogal ci fase àdduna ci bëgg yàlla sëñ Ahmadou Fa Jamañang mi ma tudd sëñ Ibrahima Diop al-Masari bi mu koy niral di wax ni mu mel dañu ni'mal imaamu imaamul muslimina ma'an ahmadou fa jama man ka shamsi qad zahra al aalimul aamilul aali maratibuhu nuurul muridina man abqa lahum wadara fattan fadailuhu laa yantahi abadan bal axjalal fikra man xat raama an athara kaadat tamuutu bi tuuba ummatan atasan law lam yakun biruhu fi ufqiha hafara kam min muridin qada fawran hawaijuhu fasaara badran muniran tuzilu zumara daal di wax ni xat faaqa jumlata awlaadil fata maaram xayral xadimi lazi ëhlal ola bëhëra wa wala yujazi i fii saalum wala bawolin wala kajuurin walliyun fatla hustahara kon amul kuñ ko daan tëkkaleel ci wàlluy bu ñuy wax kajoor la jóge wala ci saalum wala ci bawul bawal mun toll woon na ci martaba hmm. mel ni nekk na imaamu hmm. jullit yëpp bu ñu dajee man mat leen imaam hmm. ci sàmm moom ak ragal yàlla xam-xamam mu daan wax fii ba Màkka nanguwuma ko ma raw kii ci premier murit yi jaayanteeg sëñ Touba la ka topp mooy sëñ Ahmadou Ndumbe Xabbaan sëñ jiiri sëñ Ahmadou Ndumbe sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ci Irwa u Nadim mm-hmm. nee na mooy jëmm ji nga xam ni xel bi mu dawee ci mm-hmm. Mbàkke Kajoor bi nga yoon bi di door mm-hmm. dawe ko ci bi sëñ bi nekkee Touba dawee ko bi sëñ bi tukkee ci géej gi ba ko fi ci ginnaawam daawee ko bi ñu noppee gis Serigne Touba doomi Serigne Touba ne fi amul différence. loolu passif la. Mm-hmm. murit boo xam ne li nga daw xel yëpp a bi nga gisee sëñ beeg bi nga ko noppee gis. bi mu dëddoog bi mu tukkee lépp a yem kon murit saadix nga. Mm-hmm. nga xam ni taxawal nay dëkk. lu mu liggéey yót ko sëñ Touba. Mm-hmm. dem na ba sëriñ bi doyloo li muy xéewloo moom njabootam sëñ ma numbee koy bay. nga xam ni mille 1858 yi mu feeñee ci njax. ba 1933. bi muy génn àdduna. te mu ngi génn ci àdduna Dendey. ndax xam nga sëñ Manoumbe. Hmm. dafa sanc 1896 fu ñuy wax kër Mëgëy Ndaw boobu sëñ baa ngi ci géej. sanc dëkk bu ñuy wax Xabaan hmm. sañ ci dëkk bu ñuy wax xojjul ga xojjal ga ca wetu Njaaréem. Hmm. mu ngi ko xojjal mu ngi ko sanc 1914. sanc dëkk bu ñuy wax Mbampana 1915. sanc dëkk bu ñuy wax Sam 1923. sanc dëkk bu ñuy wax Dendey 1925. 1933 tawat song ko. songe ko biir saam. saam di teraangay kese. di juri kese. di alalu kese. lépp njabootam ne fa. mu ni su ma wàccee liggéey saam. Hmm. ñibbi gisanteeg sëñ Touba. day mel damaa dama koo wor ndax damaa nekkoon ci teraanga yeeg yii gaa yi tiitaroo tey ay soxna wër maag xéewal gi bari <laughs> damay dem ca fa nekkoon tool ndax déndey ay tool la woon sëñ Modou xabaar na ko def dëkk waaye tool la woon kon damay dem ca tool ya laxasu di liggéey ba wàcc ak sama takkaay fekki sëñ Touba aljana mu xam ne lan ma bàyyi woon waruma ko ci ginnaaw xoolal yooyu murit ci fi mu nekkoon ñu war a roy ci ñoom ka ca topp di sëriñ Mbàkke Buso mhm. nga xam ni waxuma bu ñu tegee fee sëriñ bi tey atte woon lislaam hmm. mënuñoo tudd kenn ci islaam moo xam abdourahman siyuti moo xam ibnu kasir moo xam moustapha mourad hmm. moo xam ibrahima dasuqi hmm. moo xam ibrahima ibnu adham moo xam imam ghazali kenn yóbbulu ko ci ñooñu dara ci ragal yàlla ji ci sàmm ji ci xam-xam bi ci maandu ji nga xam mat sëkk la def te dafa jaayanteeg sëñ tuubaa di xaar ndigalu sëñ bi nga xool ka ca topp sëñ Mor Ndiaye dem na ba sëñ bi jox ko ndigal ni leen bu ñuy julli dina am luy xew waaye bu kenn yëngutu bi nu taxawalee julli ji hmm. ñoom góoru yàlla yooyu juróom benn weer lañ doon defaral sëñ Tuubaa dëkkam hmm. di ci xëy di ci fanaan di ko defaral ay néegi ñax hmm. di defari mbaar juróom benn weer te lu ñoo def dara ngir liggéey sëñ bi ni Mor Ndiaye tàggaar anam mu ni maa ngi mu ne ko neel yaag neel yaag sa gaay yi bu ñu demee bay julli timis dina am luy xew waaye bu mu yàq seen jën yitte maag suñu borooma ci jubo ba ñu liqaamee ba sëriñ bi taxawal ci jolof waxtu timis hmm. ñu dégg néeg yi ñu defaroon juróom benn weer di tàkk <laughs> naan ratatatat di tàkk ci kaw kenn ñimew te dog julli hmm. kenn ku ko ñemee sëñ Tuubaa julli ba sërmal hmm. biñ jógee bi bi mu sërmalee julli gi bëgg koo fay sëñ bi dafa fittax baaraam ni bu kenn jóg daal di ñëw ñaari néeg a ci des sëñ bi jafal ko mu takkaale ba jeex sëñ bi ni yéen a xamul hmm. waaye bi ñuy bëgg a julli la fi jibril ñëw alayhi salaam hmm. Hmm. ni ma sunu borom nee na lii sa jaam sa taalibe yi doon sonne ñaq ba tooy def ko juróom benn weer bu ñu taxawalee julli dina yebal ngelaw mu lakk ko waaye buy lakk nag bu ko kenn laal lii rek nga ameel sawara ëllëg lii nga ameel sawara ëllëg bu ko lakkee ba pare jeex na ñii la yaakaar génn nañ ci sawara moo tax sëñ bi ni bàyyi leen xoola yooyu murit ci démb mm. Mm. ñii ba ñuy ñeen fukki xoola maam Cheikh Rafal ni mu redressé mm. nga xam ne teggin bi ci ñoom sëriñ bi du leen wax dara ñu ni mënta nekk yar ji ci ñoom du ñu ñuuxu sëriñ bi te woowu leen bu sëñ bi wax sante nañu dañoo taxawoon ci joxe seen lépp sëñ Alsey Njaay radiyallahu anhu xëyee na këram yeewi soxnay boppam génne fas yi ci kër gi hmm. génne ju dund gi hmm. pepp dugub géeg sëb géeg lépp la génne hmm. wek wek wekki li mu takkoon ci kër gi génne néegi néegi ñax yi jël sàkket yi jël léppam ba mu jeex su ëmb ay yéreem jël su meeku ba dese yére bu mu sàngoo képp la dese lépp mu jeexal kon lépp laa joxe sëriñ Tuuba bëggatuma ci àdduna lu toll ni bën bënu puso dikk ci sëñ bi ni ko jébbal naa la lépp mbàkke amatuma dara yow laa am hmm. samay soxnaa ngoog hadiya la hmm. <laughs> samay kër a ngoog hadiya la jur gaa ngoog njaboot gaa ngoog doom yaa ngoog yooyu hmm. jëf te jaroon dafa yóbbu sëñ Tuubaa ci xaal joo xam ni daa ñëwaat ni ko yàlla gërëm na la waaye yóbbul soxna yi ci kër ga te ngeen nekk fa xaar ma yóbbul yéer yi nga ci loo suturloo yóbbul loo dundee keroog la ko sëñ Touba ne ko innaka la tahdi ila siratin mustaqim jooju wax ju rëy la ju yàlla waxoon yarantu bi da ngay jubal jëme ci yoon defal ko garaatu seex fii la mag ñi nekkoon sëriñ jiili hmm. sëriñ Madiba Sylla ku ne xam na ni li mu magee sëriñ Seex Gaynde na bari na lool ndax ci année 1800 et quelque yi la 1880 hmm. xëy na hmm. sëriñ Madiba Sylla sëñ Touba ko seexal ci seexam yu mujj yi la bokk moom ak sëñ Mor Rijaal Seck yàlla dogal na bis ci loo xam ni ngànt la mu toog ci oto Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bokk ak moom oto mhm. keroog bi ko sëñ Cheikh joxe ndigal ñu bokk oto mhm. moo ne manoon na ni ngi sëñ Cheikh la àndaloon waaye bi mu wàccee ci oto bi juróom fukki junni la jël takk ko ba mu dëgër mu ñëw ci sëñ Cheikh ni ko maa ngi koy tuube bokk ak yow oto est-ce que ci ngant xoolal li xew tey sëriñ si lañ def moroom fi ñuy toog la ñuy toog yenn saa yi xam àgg seen njabootu bopp di ko lëjtu <laughs> bu ñu waxee ñu koy ji ñu tontu leen bu ñu joxee ndigal duñ ko def foofu la murit yi nekkoon xoolal tey sëriñ Mor di jal Seck mi ma tudd nga xam ne moo mujj liggéeyal sëriñ Touba bu ñu la laajee ku mujj liggéeyal sëñ Touba moom la ndax sëñ bi da koo woolu hmm. bi sëñ Touba desee ñeenti fan la ko woolu mu ñëw lettre bi mu ngi fi woon hmm. ni ko ni topp toppatoo lu bari ci lu ñuy dunde ci ceeb ak ya ca jëm yëpp aju ak ndawal mm-hmm. indi ko njaareem mm-hmm. bis sàngam mbooloo dina fa daje di ma xaar te ñëpp ko war a dunde booba la ñuy waajal sëñ Touba di ko denc loolu la ñu añee xéwloo ko ci bis bi moom la ko sëñ bi mu ca sant 1904 nuy jënd sëñ Touba gànnaar mm-hmm. moom sëñ Mor Rijal Seck ba mu ñëwee sëriñ bi ni ko daa am ay gëléem yuy ñëw fii di dugg ba ci sama xayma gi ba xamatuma lu may mën a def te am naa ci ñoom ñeewantal te hmm. bëgguma ñu yàq li may def ma bëggoon ko wut benn taata boo hmm. doxalee sama diggante ak ñoom hmm, te loolu ay garabu ron a koy man day jar nga dem ba Sénégal wutal ma ay garabu ron indi ko wërale ko ba duñ agsi ci man sëñ Mor Rijaal Seck a takk ndigam jóge saalu euh, fële gànnaar ci yooyu jamono 1904 dikk ba njaa ba Njaasaan wax ko mam bu Kunta ko bari woon na ay ron mam bu may ko lam ca am man yebal ko ci jëwrin may sa mbay sàll bu tiwaawan mm. ni ko am na ci lu bari mm. ca dem mu daggal ko ci ni loo soxla jëlal mm. dinaa la jàppale camion comme ci sëñ Tuubaa la jëm mu ñaanal jox ko camion mu yóbbul ko ko ba dagana xoola yooyu mu murit boobu distance bi daan def di ko yóbbul sëñ Tuubaa sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ lan moo tax sëñ Tuubaa bindal ko jazaaka yaqilu Ibrahima mawlaaka xayral jaza wal mun wa mun naa daareeka awlaaka lu tax sëñ Tuubaa bindal ko googu xasida ku ne xam na ni sëñ Touba moo yeewi kenn ci njabootam. di soxna Jàtture mm-hmm. soxna Jàtture moom la sëñ Touba yeewi soxna Jàtture Mbàkke bëggoon koo dencali mm-hmm. sëriñ Mbàkke soxna mu sëriñ Abdul Xaadir mu mag ma mm-hmm. mu maam Balla Aysa ndax mbokk sëñ Touba booba ñu nga Mbàkke Kajoor sëñ bi bëggoon ko yóbbu soxna si jële ko Mbàkke Kajoor yóbbu ko ba naawel jox ko maam Aysatu Waalo pour ñu yóbbu ko njañal ya ca saalu booba kuñ ko gaaral hmm. da ngay wax damay bañ a jël bind ndax darsu bi muy jàng tey hmm. ma mu raw ma sëñ bi gaaral ko keneen nga wax loolu hmm. ba ko sëñ Ibrahima Sarr Njaañ yëgee ñëw dane ko daam yónninti boo yónni mu ne waaw mu ne ko maa lay demal mu ne ko sa moroom yi kat dañ ñi dañuy bañ a jël bind mu ne ko man Mbàkke sa yónneen garal na ma jël bind bu mu doon ngir demal la sa aaju sëñ bi ne ko boo demee ci sama yónneen jël bind dinaa la jàngal bind bu nekkul ci benn këyit ñu koy xool àdduna ak àllaaxira loolooy Pastef ah, mu daal di jël soxna si teg ko ci fas ah. jëlee ko Mbàkke Kajoor hmm. ba moom naawel ah. day dox kat jàpp ci fas wi hmm. teg ci soxna soo si sëñ Tuubaa yoroon yóbbu ko ba foofa mu jox ko soxna ay Waalo ngir nu jox ko sëñ Mbàkke soxna hmm. ginnaaw bi la ci sañ Mbàkke soxna am sëñ Abdou Dia Mbàkke Diwoli ak soxna Bousso Dia mi ñëpp xam euh, nga xam moo jur sëñ moom ma Mamor Mbacke Pakalaak ñoom ñooñu euh, sëñ Abdou Dia Mbacke Dioli ku ne xam ne ko mooy bàyyi sëriñ Baara Mbacke Dioli ñoom sëñ Mahmadan ak ñu ni demee nga xam ne loolu mu defal sëñ bi bi mu àggee ba yóbbu soxna si dafa dëppaat ak fas yi mhm. jële ko Saalum ba Mbacke Kajoor ni jomb naa mhm. fas woo xam ni sama soxna sëriñ a ci toogoon ki ma yaakaar di sëñ Bamba ku ñuy tudd di ko tudd di soxna si barzaq ci toogoon jomb naa toogati ci fasoo dox ak tànkam saalum ba Mbàkke Kajoor murit yaa boo ko teg lii xew kon tey ñu yemani foofu ba nga ñëwaat <laughs> waaye murit démb ya kenn dabule dégg la mm. dégguñu sëñ bi loolu lu mat di waxtaane la mm. dégguñu sëñ bi tey euh, coow yi am ak problème yëpp du ci côté taalibe yi nag mm. kese am na ñenn ci sëriñ siñ ko sañ a wax da ci am ñu teggi na nañu yoon ba pare di dox bëgg di mbooloo di leen topp dañu teggi yoon sëñ Tuubaa daa waxoon ca Jolof mm-hmm. képp ku ci bëgg bëggati mbooloo nanga jaar ci yoon mm-hmm. ku ci bëggati mbooloo dina topp jaaral ci yoon kon ñañ ko war a wax am nañu jaarul ci yoon mm-hmm. ba pare bëgg mbooloo di leen topp ñay toppe ji xamuñu ko jaar ci yoon a ko ko wàcc te dem di toppe ji alquran dafa wax ni minal muminina rijalun saddaqu ma ahadullaha alayhi fa minhum man qadaa nahbu waaye fa wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila gis nga aaya boobu du jar xool la xam nga min minal mu'minina sëñ Tuubaa ñi mu tànn laa lay wax min minal mu'minina loolu dañoo jógee ci ñi gëm yàlla d'abord ñoom la sëñ Tuubaa dem di ci tànn minal mu'minina rijaalun hmm. kon dañuy nekk ay góoru yàlla yu pare avant ñuy dem di wuy ji wooteb sëñ bi waaye saddaqu hmm. ma aadullaha allahu jooju Serigne Touba boo bindee Bamba Mbakke. waaw Bamba Mbakke. waaw ñaata la Bamba 44. 44 waaw Mbakke lu mu doon 22. 22 boo ko boolee looy am. 66 66 Allahu lu mu doon. <laughs> ah 66. mooy ismu saati. <laughs> gis nga aaya boobu dafa wane yoonu murid. waaw yani minal mu'minina. waaw rijaalun saddaqu ma aadullaha ma aahadu Bamba Mbakke. waaw dégg nga alayhi <laughs> dafa am ci ñi gëm yàlla. góoru yàlla yoo xam dem nañu lañu. déyale woon ak moom dëggu nañ ci dëgg la ci ñoom waaye am na ci ñoo xam ne nag seenu wàll la am ñoom jeexal nañ ko fii mm-hmm. fii lañ ko jeexale ci dundu àdduna gi nga xam ni mm-hmm. mooy li la sëñ bi wax léegi àdduna képp lañ dem toppe ji bu jeexee jeexal am ñoo xam ne nag dañuy xaarandi mm-hmm. la gën a woomal te gën a dëggu ñu ànd ak moom loola muy yàlla kese ñu dem toppe ko sëñ Tuuba sëriñ bi tënk la lay tax ñu nekk murit saadix ci ñeenti melo te loolu tey ñu ngi koy waxal ku am xaalis ñu ngi koy waxal ku rëy làmmeñ ñu ngi koy waxal ku am mbooloo mm. ñu ngi koy waxal ku gën a siiw mm. mais nattuñu ko ci nattuwaay bi sëñ Touba tëral moom sëñ Touba dafa wax ni mm. sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar mm-hmm. arbaatun mm-hmm. nazamtuhaa xaw faxtira asidqu fi mahabbati cheikhi abad sumamtisaalu amrihi ay su warat mm-hmm. wa tarku li'tiraadi mutlaqan walaw bi baatinin allihi fi ma xatrawo wa maahu salabul ixtiyaari li usni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hazi i sifaat min al muridina fa yutriku siqaat fanzir u fi lataifi saxraani tajidhu kal yaquuti wal marjaan loolu suñu tool ñeenti melo yooyu ñu bàyyi ci xel ba ca njëkk mooy asidqu fi mahabbati cheikh mooy lépp sax nga xam ne mooy lépp mm-hmm. tey jii am na ñooñ bëgg gi ñuy woote ci sëñ Tuubaa du dëgg ci ñoom mm-hmm. ndax mënoo bëgg jëmm mm-hmm. te lam la digal sa yoon nekku ca lam lay tere doo ko bàyyi ca ngay dund guddeeg ba cëg ba a woote ak cofeel kooku xel mënu ko nangu mm-hmm. kon dëggu ci sopp gi mm-hmm. moo manqué mm-hmm. ndax mag ñii ñu fi tudd ñu démb ñi ñoom seen sopp sëñ Tuubaa triché niw ci woon dafa nekkoon dëgg mu gënal leen seen jëmi bopp gënal leen seen njabooti bopp nga xam ni na jullit njëkk yee jëflante ak yàlla sunu borom rek inna laa stare inna laa stare minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna la wax yàlla jënde na ci ñi gëm yàlla seen alal ak seen seen jëmmi bopp seen daraja ñii itam bi ñu ñëwee ci sëñ Touba danoo jaay ñoom seen daraja gisuñu ko daraja yi sëñ Touba leen ñor alalu àdduna ji gisuñu ko mm. lu nu am jox ko sëñ Touba yët ko calcul nu wutuñu àdduna loolu di lu mat a bàyyi xel kon ñu njëkk ña mm. dëgg la woon ca ñoom sopp gën sopp sëñ sëñ bi teg nii ngay jëfe sa ndigalu sëriñ saa su rotee xay su warat mhm. la saa bu rotee mooy amul calculer amul sëriñ bi lim ma digal tey jafe na amul lu tax sëriñ bi di ma digal lii wala sëriñ bi dañ koo wax sëriñ bi dañ koo wax sa yoon nekkul ca loola <laughs> ndigalu sëriñ bi moom exécuté ci saas ma indil la ci lool lu koy firndeel ci kenn ci ki di di di di xutba bu mag ci yoonu murid di maam Cheikh a Fall sëriñ bi da koo digal 1903 ca daarul mën na ni ko soxna yi nga yor ca kër ga soo demee yeewil ñëpp defe naa ba lislaam sosoog léegi dégguñu loolu fenn nga yor say soxna hmm. ka yaakaar doxale ko sa digganteeg yàlla mu ni boo ñibbee sa kër hmm. ña nga yor ca kër ga ñuy soxna yu lay liggéeyal hmm. jox naa la ndigal yeewil ñëpp te toog déglu <laughs> loolu loolu ñi xam nag mu tasawufoon yi tasawuf xam nañ ñi nitu yàlla ji ji kamaal tamat daana la tasloo sa kër takkaatal la ko feneen ngir leneen waaye dane ko boo demee yeewil ñëpp lan la ci maam Cheikh Rafal teg Mbàkke yeewi naa ñëpp te eggagum mu ni ko boo demee ba seen idda mat nga del si fi ma wax la fa nga koy joxe waat demal joxal ma ko say nawle xam nga sëñ jiili bàyyil na nga yor te dem jox ko say nawle <laughs> loolu yombul xam nga ndigal lool <laughs> maam Cheikh Rafal ni nangu na sëñ bi ni ko soxna Fat Fall Wade demal nga jox ko maam Cheikh Issa Dieng borom Dieng ak la ka Cheikh Ibrahima yeewi ko jox ko maam Cheikh Issa Dieng tegaale ci hëddi ya te mu neex ko mu ni ko soxna Fat Diop Sayer demal nga jox ko góor gi Saïd Gaye mu dem jox ko sëñ it gay tegaale ci addiyaam te da koy neex mu ni ko soxna Fat Diop Sayer hmm. jox ko kon sëñ Saïd Gaye mu ni waaw hmm. mu ni ko boo demee soxna Astou Sylla jox ko sëñ muutu Farma Fall mu yeewi ko jox sañ Moodu Farma Fall joxe waale addiyaam hmm. sëriñ bi tegal ko ca ni ko soo demee na nga jël sa soxna sañuy wax soxna Awa Diop Jaxate nga xam ni euh, moo jur sëñ Basiiru Fall ci maam Cheikh Fall. mu ne ko waaw mu ne ko demal nga joxal ma ko. Hmm. Euh, euh, Serigne Saliou Fall borom Daalu Xafoor Sarak. mu dem jox ko sëñ Saliou Fall borom Daalu Xafoor. Hmm. sëñ bi ni ko Soxna Xariloo. Hmm. Soxna Xariloo demal nga jox ko Cheikh Baara Sarr. maam Cheikh Fall joxe ñëpp. déglu Serigne Touba. loolu laa wax ni yombul. loolu kon li sëñ bi wax ni. meloo murit dëgg. mooy ndigalu sëriñ bi saa bu rotee amul calculer def ko ci saasi. Mm. ñi démb ñii ñoom dañ koy def ci saasi duñu calculer. Mm. mu teg ca nga bàyyi tànn. Mm. sa sëriñ bi la tànnal. man di ci exemple sëñ Ahmadou Diaw Paxa. sëñ bi da koo jox ndigal. ci 1909. ni ko demal nga sanc ji Paxa. Paxa mu nga noonu boo ñëwee ba njaaree. jël penku bi. bu ñu mel lu jëm Gosaas Paxa ngi foofu. demal nga sanc. mu ànd góor yàlla ya ko yaakaar sëñ bi ni ko bu ngeen demee ba foo xam ne egg ngeen fa te kenn moomu ko ku ngeen di njort ku dul yàlla sunu borom hmm. def leen ko bërëb ba mooy bërëb bi góoru yàlla yi jiitu hmm. di wër di wër ba dem ci fu nu njort ni kenn moomu ko mu ne demee bay fàq garab yi ngir bëgg a dëkk hmm. nekk gayndee fa def gol nekk fa gaynde gu mag ñu ne ah fii de gayndee fi ne ñu dem wax ko sëriñ Ahmadou Diaw Pax ni ko ah Diaw de fanu yaakaar dañ faa fekk gaynde mu ni foofa la sëñ Touba dana leen fu ngeen demee ba gis fu kenn moomul te gaynde fu mu nekk wet na fa kenn du ko fa wéttali foofa la ma wax bu ngeen demee neen ko na jug may ma foofa lay dëkk ñi dañoo wóoluwul sëñ Touba mu sanc paxam 1909 ba 10 ba 11 ba 12 benn teen mënta bënn ñu am ndox mag ñi dañ ciy xëy suba ba ngoon gas gas gas ba sonn mm. mais bu ñu yaakaaree ndox poussière di génn rek wala gaz ñu am ndox am na ñu ko def ñaari at ba seeni loxo futtu ci dagg. am na ñu dem ba wàcc ci liggéey ci liggéey bu metti te mm. amuñu ndox. bi ñu eggee 1912 Cheikhul Khadim jógee Jolof. Mm. su altine tolloo 15 janvier 1912. Mm. ci la ñëw njaaree. bi sëñ bi ñëwee def fa biir. sëñ Ahmadou Diaw Paxa ànd ak taalibe bu tudd góor gi Makhtar Fall. daal di nañ dem ci Serigne Touba. ma diis ko aajo bii. ndax boobu ba léegi mënuñoo bënn teen bi am ndox. te nit ñi sonn nañu nañ dem mu ñaanal nu ci. góor gi Maxtaar Fall moom bég na lool. Hmm. ndax xam na ni ñu daj ci teen bi te mënuñu am ndox. Hmm. mu ne ndax yàlla tey ñu dem ci sëñ Touba mu ñaan ci. Hmm. mu ànd ak sëñ Ahmadou Diaw Pax. ba nu ñëwee ba nuyoo sëñ ne ko Ahmadou Diaw Pax nu teen ba def. lan la tontu sëñ Touba mu nga fay neex ndox muy fuur rek mbàkke ñuy naan di fóot. <laughs> loolu jaaxal na góor gi Maxtaar Fall mi mu àndal. <laughs> mu ne waaw sëñ bi xanaa daa jànnaxe fàttali mu waxoon <laughs> bi ñu fa jógee génn. mu ni ko waa yow bi la sëñ Touba waxee li nga ko tontu nag moom naka la wax loolu sëñ bi sëñ bi di ko tàllal ñu ñaanal la ca ko mm-hmm. daal di ñaan ba ñu génnee mu ni ko yéen xamagu leen sëriñ bi mm-hmm. ndax sëriñ bi waxuma naka bënn ba xam nga bënn ak teen bokkul suñu ma woon naka sa bënn ba dinaa ko mën a wax ni ko bënnagul ñu ngi ca ba tey mu ñaam waaye teen buñ koy wax lu am ndoxa tax mm-hmm. da di ma naka teen ba ma xam lu mu wax noonu la demee mm-hmm. loolu la yàlla dogal soo tax ma ne ko mu ngay neex di ko baal ba nu àgg bi nu agsee yàlla xam na ko mm-hmm. bi ñuy mal dëkk bi deux cent mètres dañuy dégg tëll teen ji muy bënn ndox maa nga fa ba tey dem naa fa bàyyi Cerno Jaw yóbbu fa kon ñooñu mooy dégg seen sëriñ mm-hmm. euh, la mu wax doy leen walif beneen wax bu mën a doon mm-hmm. fa la mag ñi nekkoon mm-hmm. bi ci des it mu ne ngeen bàyyi gaaral seen diggante seen seen sëriñ gaaral gii xew xam nga tey ku mel ni sëriñ Mountakha Bachir nga xool fi mu toll ci at wax na ko ñëpp yi dégg toll naa fa mag nga doon toog tollu ndax romb naa sama juróom-ñett fukki at mu wóor la cëng ni dundam gépp jox na ko lislaam mu wóor la cëng ni jox na lépp sëriñ Tuubaa mu wóor la cëng ne xam-xam bi mu am kenn amu ko fi ci yoon mu wóor la ni muy toppee yàlla ak yitte ji mu ko jox a ngërëm li mu làq ci ay baayam ak magam yëpp sëñ góor a jéey mi daan dawalal saali Saaliwu yàlla na ko yàlla sam sama xarita yenn saa yi mu woo ma ñaari waxtu téléphone lii moo ma ko nettali te moo ko fekk te nee na ma 1963 hmm. ba bi sëriñ Saaliwu ñibbi àjjana 2007 de buñ ci tàqalikoon matul juróomi fan moo ni ma sëriñ Muntaxa mii hmm. ziyaar si na sëriñ Saaliwu hmm. ba mu ñëwee keroog sëñ Saliou bég ca lool ni ko damaa bëggoon nga yendul ma nee sëñ mun taxaa ne ko ah Mbàkke hmm. su la neexee sax dootuma ñibbi fi laay toog ba àdduna di tukki ci man est-ce que <laughs> ci loolu ko sëñ Saliou nee na keroog ñu toog fa ba timis ja sëñ Saliou di ko yeewi dani ko tey jataay bii day hmm. juboo naa ceeg sama borom loo ci fas yàlla dina la ci fekk bu yow nga fas ci li nga bëgg waaye lan la ko sëñ Muntaxa tontu hmm. dani ko maa ngi fas nga yàgg fi téwér Mbàkke bu dee am na luy jëm ci sama bopp yàlla sama taalibe rafet sama digg ak yow. est kon ku mel nii. <laughs> warta yilif fi mu ne nii. njabootu sëñ Touba. Ah, kenn di mooy ndigalam. bi ci topp tam. Mhm. ku ne xam na ni Serigne Saliou moom la woowoon bi Serigne Moutada wàccee liggéey. ko demal taxawu sa wéjur woowu. ndax mate nga ko sëkk. bi mu ko taxawoo ba àggal. Mhm. jël si ki sëriñ Saliou. Mhm. dane ko alhamdulilah. man it bu ndogal bi wàccee sama kaw yow rek. te moo ko taxawu. ku ne xam nañ tam 1988. waaw bi sëñ Mor Mbaye Cissé ñibbee aljana ndax sëñ Mor Mbaye Cissé ku ko gën a yéeme amul. daana wax ni maay mécanicien yoonu murit <laughs> yoonu murit ku ci yàqu mën naa laa defar comme ni mécanicien defare pièce oto <laughs> te li may sëñ Tuubaa defal jar jarul may génn man doomi sëñ Njaasi Siise soxna Mareem Kajaga du ma génn sama buntu kër fii laay toog lu ma bëgg a faj faj ko ku fasanteeg man kóllëre ci fato sax bu ëllëgee ma sukkandiku ci yàlla jéggal euh, sëñ Mor Mbay Siise moomu sëriñ Tuubaa ni ko saa boo génnee àdduna maa lay jullee nee na moo ko waxal boppam 88 mu génn àdduna boobu ci zahir sañ bi nekkatu fi waaye sëñ abdoulahat yi sëñ Tuuba sëñ abdoulahat woolu mun Muntaxa mu ñëw mu ne ko demal jullee ko ci yàgg na nu junñu ni mooy sëñ Tuuba mu yor taxawaay boo xam ni ci bëggam sëriñ bi ak topp ay kilifaam mhm. xoola diggam ak sëriñ saaliw fi ko tegoon nga xam ne dem na ba sëñ saaliw ni ko dee ma jàngal nuuru daare loo tab jatat wax na ma dégg mu ni mhm. fi mu ne aljuma bu jot li muy xat-xat nekk xalif général des mourides mu ngi koy jàngal sëñ Saliou cofeel ji mu am ci baayam boobu nga xam ne def na ko ci xasida jox ko bam naan ko uhibbuka yaa cheikh yi wa musliha xaalina salaahuka min ahlil ilahi mushahadu wa sulhuka maarufun lada nnaasi waadihun xayaatuka mhm. islaahun wa dawman tujaahidu masaalihuna fi l inqiyaadi li qasdikum mhm. wa nasratukum fi llaahi xaflan tutaaridu wa ma nasmika almatlubi fi kulli kainin mhm. waxat ustau fi llaahi wallahu mawjudu sëñ Muntaxa dàq jàng ñëpp <laughs> wan ñu merow sëñ Saaliw déggal ko xoolal tey jii ndax kenn war na koo faye wàcc ndigalam mu mel koog bàyyam yëpp waaye mel koog ay magam xoola diggam ak alaaji baara fàllilu fii la takk 72 millions ñëpp di teg bët mu takk ndiggam ànd ak rakkam sëñ abdul hakim mu baax ma ñu toog ñoom ñaar mu ni ko hmm. bii lii di ñëw ci yow de daa fekkoon amaguñu woon ndigal ci wéyal liggéey bi comme nag dem na te fekk na booba amuñu woon ndigal nu ngi koy tuub mbàkke la neexee nu wéyal bala neexee nu tëj ko muy muy bëréb bi daal ni ko nag 72 euh, millions yi hmm. mooy firndeel sunu tuub si ak ànd ak yow muy at yi nga xam ni mooy limu ati sëriñ Bassirou ci limu xaalis jox ko sëñ Alaaji Baara li ko Serigne di Sidil Mokhtar Magam wax hmm. ñëpp dégg nañ ko gërëm naa ko sant naa ko hmm. ñaanal ko bay tifli ci bopp kon ku mel noonu toog hmm. gis ngeen léegi li xew su génnee def sorti wax waroon nañ ko sakkanal war nañ koo jàppale war na noo yaru war na noo nekk ay taalibi war na noo jomb muy wax di waxaat di waxaat te ci biir kër sëriñ bi. nan ko wax. fim ne nii bari na nekk ci biir yoon bi di ci ay kilifa. te yàq. yàq rek waaw. te yàq te kilifa yi bu ñuy yàq nag. waaw mënatuñoo canaliser taalibe yi taalibe yi wallaahi sëñ Baye Jaxate dani moo jaalu dee fi defati. Mhm. moo jaalu dee fi waxati. Mhm. moo jaa ku dee fi royati. Mhm. bu kilifay moya ka fa. ku war a boole ay nitam. di di waar a koy ful seeni ngëm. defu ko far boole aw nitam di mm. moy aka soow aka fo adduna yàqu na yaxeet mm-hmm. ku yebu wut bërëb bu wéet mm-hmm. nekk fa di jaamoo ko wéet tey mm-hmm. sori nag kuy moy aka fo adduna yàqu na kat te kilifa yee ko yàq kat du seenu nit a ko yàq kat kilifa yee fii dox di fo kilifa bu dee dox di fo dootu mën a tee tere ku fo te su dul tere nag ku fo ñëppam di mooy faaw aka fo loolu waxe sëñ Mbay Jaxate la kon ñu bàyyi xel ci lii xew tayit am nañu masuul yi bu leen di xaar amaa yaakaar ni hmm. sëriñ Tuubaa nu war a gënal lépp bokk da nga bokk ci sëriñ Tuubaa hmm. war na laa doy war naa sakkan ci yow ak teraanga ci mu la defal ba tey ka toogal sëriñ Tuuba lépp loo gis mu naa a jaar ci yow sax tilimal liggéeyam war ngaa taxaw ci dindi lool dindi lool waxuma laa nag kon nag waxuma laa nag nga man di seetaan lenn li te ni nag sëriñ bi nga bëgg sañ bay Jaxate dani ku yàlla dénk mbooloo mu doy ñu di la gontal ak a xëy mm-hmm. loo leen digal kenn du ko moy mm-hmm. war ngaa jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom mm-hmm. ba ñu aw siraatal mustaqim te fexe ba nu jaamu xaddiim bu wér a wér way daa lu ko may yom yowmal qiyaam hmm. daañu la war ni jëggi mbaam foñala naa la xàq jaam na nga yoroon joxe ko tey ngay jéem a daw doo mën a daw mbooloo ma mépp nga la daw xaw ma ci yaw lu may taxaw hmm. jéem a mun gàcce gu rëy hmm. kon lii xew ñépp a ci am responsabilité waaye nag ñu dellu ci taali ndax loo mën a dégg baaxa baax ba raw doomi Serigne Touba Serigne Touba kat doomam yépp ko daan liggéeyal ci taali bi lañ nekk ku ne xam na ni sëñ Modou Moustapha sëñ bi junj na ko léegi sëriñ Njañ lu ko waral kawar gi lay bopp talatu koo peñe ngir liggéey te gis ngeen maxtu mi mi mu daan takk moom sëñ Modou Moustapha moom day nee na ñaan nekku ci de mm-hmm. defuma ci alquran defuma ci xasida mm-hmm. li di gis ba koy takk mooy juróomi ndigal yi ma sëñ bi digaloo moom laa def ciw këyit di ko takk di ko wéttali ko fu ma jëm yóbbaale ko ngir bañ cee fàtte dara mu naax saay fa nekkoon sëñ Modou Moustapha al moo daan wax njuba ma doy te daana wax ne sëñ Tuubaa ma jur waaye mm. njuba ma doy xool leen ñoom li ñu daj mm. nit ñu fekk ñu defaral ñu lépp mm. nu war koo jëfandiku ci taalibe gu rafet ñu nar yàq suñu liggéey saltel ko ci lan pañeti àdduna képp ak àdduna ñu ci bëree ngi dem ti àdduna képp moo leen nar a sànq te wax naa ko bërki démb ci média juróom yii sëriñ jii li képp ku ci bàyyiwul xel ci yàqule nga dem mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa kenn nu ko yàqal dara de xam nga lu sëñ Tuubaa wax su ma demee bay génn àdduna danaa yóbbuwaal lii sëñ maxtaar binta loo la ko wax ni ko maxtaar binta mu ne ko mbàkke hmm. mu ne ko sunu borom tong na ma hmm. teg ma ci benn toogukaay bopp dafa tiim adduna sépp hmm. muril ma ko nag li ci kiiraay li ci mbóot yàlla wiññil na ma ko ma jàkkaarloog lépp bis pénc ci taxaw ni ko maxtaar binta daa am lu ma ca jaaxal bi ma ko xoole la ma xool mu jaaxal ma mooy damaa gis kilifa gu am daraja mbooloo yu bari di ko topp mu riir jëm sawara ni ko te doxul jëm ca waaxuwul jëm ca yàllkatul jëm ca waaye dafa fëx di daw di tàbbi sawar ak njabootam ni tegat li ci gën a garaaw amul mindeef mu sa bopp bi jëm kaw say tànk jëm suuf nga mën a dox diggante kilifa googoog ña ko topp biir sawar tàbbi ca sëñ Maxtaar Bintaloo ni ko loolu Mbàkke yéeme ne mu ni am na lu ko gën a yéeme mhm. moo ne man lay tuddoo te séqunu dara <laughs> xam ngeen ne seytaane mën ta yàqal dara sëriñ bi sëñ bi nee na rey naa ko mënul sama mbir dara miccutu na daw mel ni golo baa al laayinu yaay seen këqër di li xayri zaati baati yéen bi tar saaqa laayinu li siwaay zaati alxafiis yafiru min tafakkurin ma alxafiis manaul maaniu min tawajuhi li hmm. yow rabbi bi nabi mu wajjihi waajahani bi dikri wa atlu hmm. li wajhi lam yaq naxwil xitlu ni qalbu xaraabul laini wa xuluubul xisbi wallat li xayri hërëboo min isbi sarra lainu ka firaabi xidi li xayri zaatiyan bi eh, bi tardi mm. kon mënul dara ci sëñ Tuuba waaye nag day jéem a salteel sëñ bi nag ni salte googu day dem ci ku demul fen mu ne ko tuddul sëñ Tuuba daal di wax nag ni mm. waaye Maxtaar Binta su may ñibbi aljana damay waale yàq mm. bàyyi leen ak yàqule mata baxel la su may ñibbi aljana damay yóbbuwaale yàq baleen ak yàqule yàq moom sëñ bàmba da ko lem yóbbaale kenn mënta yàq dara ci yoon yàqule rek la fi bàyyi di ko jéem a defaral ba sa defaru mm. wala di ko jéem a yàqal far yàqule kon sëñ bi yóbbaale na loolu juróom yi yoonu murit di bañ nag te ku ne war cee bàyyi xel muy man miy wax ak ñi may dégg ñëpp lu mat a ba xel la ko mm. def ci yàqule nga jëm ak koo mën a doon ak koo mën a àndal ak loo mën a yor mm-hmm. yooyu mooy yoonu murit bëggul jiitu daa ko ki démb yoonu murit bëggul jiitu mm-hmm. ki sëriñ Touba jiital rek mooy njiit mooy jiital rek wallaahi kooka la ñuy bàyyi mu jiite ñëpp topp ci ginnaaw mais kenn du ci jéem a jiitu ku dul kooka ndax kooka tàndul boppam moom hmm. sëñ mën taxaa wax na ko lii damaa dab tekk wóolu dër wut ay magam la toppoon diir ñaanal ñu yàgg fi tamit kon moom tànnul boppam nun ñi itam lu nu bëgg-bëgg suñu sëriñ mënuñu koo tànn yenn saa yi nga ni sabab sëriñ a fi gën te mënoo fexe ba mu toog ci xilaafa bi mënoo ko tànn yenn saa yi sëf sëriñ mag fi ci at ba nu yaakaar ko ci ba mu xëy dem kon du pexe sëriñ day tànn kuy jiitu kooku noppi na ci te ku mat lay doon sëkk di sëriñ Tuubaa kon yoonu murit soxlawul jiitu ci keneen ku dul ki sëñ Tuubaa jiital muy benn mm-hmm. ñaar yoon wi bëggul làngandoo mm-hmm. koo ko gis ci moom day yàqule ki jiitu sëñ Tuubaa jiital ko bala ngaa yàqule rek jugal ni da koy jéem a diir mbagg di làngandoo moom ci suuf nga jëm yoon wi bëggul fakkastal mm-hmm. ki sëriñ bi jiital ni topp leen ko ah. kenn du yàq liggéeyam di ko tilima bëgg ko hmm. yoon wi bëggul beru hmm. seex yu ponk lañ ci yoon wi kenn déggul seen baax te nu am doole mën a faj lu ne waaye dañu cell waaye dañu ndax xam nañu yoon wi am na borom hmm. kon yoon wi bëggul beru kenn day joxe ndigal ñëpp ne ca yoon wi bëggul génn ndigal <laughs> macha allah koo gis mu génn ci ndigalu kii toogal sëñ Tuuba. mën na la giñ ci yàqule la jëm. Mm-hmm. kon lool nañ ci bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel te góorgóorlu. <laughs> jërëjëf boobu moom tënk na ko mu am solo lool nga xam ne juróom yooyu rek. moom mënoon naa doon waxtaan bi sax. nga xam ne bi ci njëkk nga xam ne euh, moo ci ëpp doole. mu mm-hmm. yónni bëggul daal jiitu. nga xam ni li ngay wax sa sama yaram dafa daw sëñ Muntaxa ni mel nga xam ni moom ak fi mu jaar li ñu ko war a njukkale mooy topp ko rek ñëpp ko war a topp te bañ te bañ a juyee ak moom ci dara hmm. ndax moom lebaluñ loolu lebal lebalul euh, leblewul loolu moom te ñi mu bokkal sëñ Touba sax ñuy sëriñ ñu yey sëti sëñ Touba rek déggal li muy waxee ak ñoom a yéemee na yéenay samay sang la waaw loolu la waaw moom ko yéemee na kooku neex naa jàppale neex naa neex naa tul dara sëñ Touba rek lay wut talut leneen maslaa lay def ak ñëpp ci lislaam bëgg sëñ Touba di ko nañ ko ci jàppale